alo waaw copain naka la copain dama am urgence urgence urgence bu capitale ah non dama am benn gaayan bu tudd Mamadou jàll dama bëgg xam lépp ci moom Mamadou Diallo numéro identification 00 1 1963 00 44 45 9 all right urgent urgent urgent naa ko am balaa ngoon kenn du yow à tout à allo. allo Kati. Kati day nelaw dafa feebar. i allo Lisa. waaw Boubacar foo nekk. Oui, euh, je devais venir te chercher. Je suis désolé, je suis très coincé. Je suis trop, trop, trop coincé. Je sais pas pourquoi. Je me bise trop, trop, trop. Non, mais Boubacar, tu devais me prendre. war ma jël si tam ma taxaw di la xaar ba ba tey maa ngi si buntu hôpital bi taxaw nga ne doo ma mën jël si. waaw je sais que je devais venir te chercher mais là je peux pas. non non non non Boubacar man c'est pas gentil de parce que man maa ngi jógee si hôpital bi taxaw si mbedd bi depuis léegi mu mat une heure de temps ma lay xaar gisuma la nga ñëw ok c'est bon. eh Idrissa man lay raccrocher. thank you ay lépp mat na ah. lépp li nga soxla woon yëpp daal c'est. grand bu mel ni yow yombul. affaire baa ngi nii non tu es mon frère nag. grand bu mel ni yow yombul. xam nga rek. grand. mbaa sa xol sedd na rek. non sama xol sedd na guy guy. non yow ñoo far. xoolal xamoon naa en moins de 24 heures da dara. doo nit yow kay ah, bu la dara metti. grand kontaan naa. jaajëf mon frère. ok merci ok cool de kon ça y accord ñu ngi koy préparé pour mu dugg bloc. alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. Mhm. Mhm. waaw yow moom cee courant rek maa ngi lay déglu. d' accord. waaw ah, finalement nu mu mujjee. alhamdulilah rabbil alamin bi ñu koy préparé pour mu dugg bloc. Souleymane fay na lépp lépp lépp. Souleymane kan mooy Souleymane. mooy tubaabu joojo ba mu doon wax moom moo tu tudd Souleymane parce que dafa bëgg a takk joojo. ah d'accord naa la yàlla dina defar lépp. jëf waay naka la en forme lépp jàmm jaajëf waay merci beaucoup kër gi nice mais heureusement Astal xam nga ne Boubacar xaalis bi ma joxoon dafa bëri te naroon naa amaat kersa di ko woowaat di ko posé yeneen problème Ouais, Boops. Ça va. À les documents ah yi nga laajte woon yëpp. waaw xaaral ma ñëw. def nan nga tudd. Mamadou Baye la. Mamadou Baye la. waaw. fan la sa daara nekk xool ma. lan la Liberté 6. waaw. Mamadou Baye la yow sant. Baye. fii sa kër la dégg waaw. saa yoo soxlaa dara mën nga fi ñëw. mu jëndal la daal jëndal la loo bëgg dégg. waaw kay nuyu ma seen ustaas. mën daal comprendre ma xaw ma nan la nit mën a bàyyee doomam bu ndaw nii rek muy yelwaat ket dama am rendez-vous su lii saa nga wax ko mu xaama dégg nga du ma yàgg d'accord en tout cas bii yoon bi duma tasaaru suma xaalis de jeter mon argent la fenêtre et mon argent va maigrir encore. Jamais. Mon argent va rester musculé. Mais pour là, il faut que j'investisse. Oui, il faut que j'investisse. Parce que si je pas là, dans ce pays-là, maintenant, l'argent est devenu comme poupoumousse, poupoumousse. Caca des chats. Tu vois même pas l'argent. Aïe, aïe, aïe. Mais allo waa Boubs. oui ça va. parking bi ci place du souvenir bi. ok ça marche j'arrive. voilà voilà si ça c'est fini pour le mariage je dois comment faire pour quitter dans les griffes du du et là je dois investir pour pouvoir. anéantir le gourou. Voilà. Donc à peu près... Ouais, ça aussi. Voilà. Là, quand je finis ça, j'investis, je deviens riche. Et puis Dakar, Demkanam. ça va. ça va alhamdulilah. alors. li nga ma laajoon yëpp mi ngi nii am na sax ay information yeneen yoo xam ne indaaleel naa la ko lépp loo xam ni. ok. mais y a autre chose délai bi nga waxoon duma ko mën a respecter. loolu waxoon nañ ci ba pare une semaine. une semaine. mais délai bi dafa gàtt duma ko mën a respecter. Boubacar maintenant sors de ma voiture génnal génnal. xamoo sax li nga dugg en enquêtant sur Mamadou Diallo la yàq sa àddina yëpp. Donc Cathy Ça va Boubacar, vous allez bien Ça Bien et hmm, sa baat bi dafa dee de. waaw sama baat moom dafa xaw a ah seen affaire bi la. mais yow foog ma yóbbu la pour ñu defal la massage bi maa la ko doon promettre keroog. Hmm, waaw pour massage bi dañ may envoyé seen numéro rek. dinaa leen contacter. ça va mais la. jooju ma woo démb ma que mère bi dafa rejeté mais ab dafa rechuté waat. waaw dafa rechuté waat. ah bon waaw ah, yow da war a ñëw sax ñu ànd dem Paris dem benn une semaine noonu Paris xam nga dem ràcc toog noonu nga xoolaale maire bi. non non t'inquiète pas. tubaabu jooje bi jël na yëpp en charge. rek jot naa jooje mu ne ma ñu ngi koy préparé pour yóbbu ko bloc. Ah, ah, mais tiens courant quoi soit avec ta maman courant d'accord. ok waaw doo sa nom bi. non salon moom moo fa mën a ñëw fa instant bi dama jàpp trop mais suma ma feexee rek xam naa dinaa la woo. d'accord Asta ñëw nga. amoon liste bi ma war a jënd ak Lisa sax mais ana moom ñëwagul. ñëwagul xaar waa Lisa foo toll. maa ngi nekkoon ni si bi di ñëw sax. léegi xam nga kër aram bi nekk Sacré-Cœur bu bees bi. su wetu rond-point bi. waaw nañ tase foofu. ok maa ngi ñëw maa ngi ñëw foofu. à tout de suite. d' accord à tout à l' heure. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Kiné ça va ça va Astel naa def. ça va bien ça va. je te présente Lisa. Lisa ça va. ça va bien. Mm-hmm. moom mooy suñu gérant bu bees bi ah, mm, moo tax ma indi ko fii pour mu xam fu ñuy jëndee produit yi. d'accord d'accord parce que désormais moom mooy ñëw léegi di def si commande ça va Lisa ça mm-hmm. ko doon wax ko si formation bi ngeen di def fii pour coiffeuse yi euh, d'accord comme xam ngeen salon de coiffure ngeen yore te en général produit capillaire yi moo leen gën di intéressé mm-hmm. traitement de cheveux yi aussi bu dee da nga am na cliente yi xëcc nga def man ngay waxal yow keñ du man danga juum. non mais yow yaa jabaru Mamadou Diallo. yow ça fait longtemps. soxna si danga juum du man. du fekki ne. jabaru Mamadou Diallo. mais nee na la du moom ki tuddul Fatou Kiné en plus elle pas mariée n'est-ce non je pas mariée. ah alors excusez-moi madame. waaw. et c'est vrai même pommettes yi sax niróowuñu. <laughs> la xam nga en général. passez une sa pomette yi xam nga man def naa mag lu yàgg sa pomette ku ko xool ak sa bakkan bi xam ni laar nga chirurgie. <laughs> wax nga dëgg la nga chirurgie daal. moom je suis démasquée mais xam nga temps yooyu maa ngi woon pare pare temps yooyu j'avais ton mais léegi bàyyi naa yooyu. da ngaa jëm nag. waaw léegi moom <laughs> franchement bàyyi naa yooyu. ok man kon dinaa fi ñëw ak coiffeuse yi. d'accord nga expliquer leen bu baax wala leen produit yi. bu nekk duñ koy utiliser wax bu nekk duñ koy utiliser ak type de cheveux bu nekk lu ci war a def. incha allah d'accord machine commande bi pare na. waa d'accord boobu pare na. waaw kon mën nañ ci jot mën ngeen ko yóbbuwaale déjà. ok d'accord. Ça va Ça va bien. En forme Ça va, Ça va bien. Ça va bien. En forme Ça va, le journée oui. il va très bien. Hein. Oui. Nous fait Non, non, ben problème. Ben. Hein. Et on l'a Ok. <laughs> et la République. maa ngi lay xool nelaw depuis quelques minutes. Ah yaa ngi nice nii booy nelaw. su nga ñu ma nekkaloon te ma la waxoon ni suñu dîner bi ça s'était très mal gise gisewaat naa ak ñoom waxtaan nañu déggoon nañu déposé waat naa dossier bi c'est passé comme une lettre à la poste je vais gagner beaucoup d'argent félicitations oui Issa xanaa xamoo ni man temps yële dama sama benn cousin boo xam ne yaayam dafa feebar ma daal di koy fexe ñu transféré ko yóbbu ko mu voyager j'ai dépensé énormément d'argent mais énormément d'argent tu mais comme j'ai appris ma femme est enceinte dama war a préparer arrivé bébé bu baax n'est-ce pas war a mën a indi xaalis bu bari préparer ko. soxla ma sa dërëm Boubacar yaa ngi dégg li ma lay wax. man bu dee xaalis kese wala lu ma tëyee sama bébé mën naa ko ba tëyee sama sëtaati set sa xaalis soxlaw ma ko man li ma bëgg mooy benn affaire que nga nekk fii toog su ma la soxlaa ma gis la bébé Boubacar nga jouer ce rôle le rôle d'un père et d'un loolu rek laa la laaj bi laajuma la leneen soxlaw ma leneen yaa may dégg. Issa je voulais qu'on discute un peu à propos liggéey bii nii ngay def nii. Hmm. man bëgguma ko. mënuma nekk am sama jabar war ko mën a yore war ko mën a toppatoo war ko mën a subvenir à ses ngay dem di liggéey ci salon bi kenn di la commandé loolu duma ko nangu bugguma liggéey boobu ngay def. Hmm. Boubacar yow xanaa li ma la wax déggoo ko salon bi demuma fa pour am lu mu dundee déedéet boo ma mënee yor man mun naa la yor si di nga mën yor bul fàtte ni kër gi man maa ko moom je suis compte en banque. salon bi may dem pour bañ a toog ñàkk def dara la de parce que nekk nekkuma jigéen yooyu di toog seen njëkk yi di dem di xaar seen tànk tubéy ñëw fekk moom may nelaw may dem plage wala shopping talluma ma ko dama dem juste comme ça pour ne pas rester am lu may occupé wu. bu fekkoon salon de coiffure ma bëgg ko sama bopp ma am si yu bëri waxuma la benn de yu bëri mun naa ko yaa may comprendre alors ba di ma indil benn wax munu nekk. Wissa yow comprendre ma de. tu es enceinte bugguma ngay dem ci salon ba produit toxique yooyu nga xam ne moom la ñuy utiliser di ci def ay afro ak ay yooyu affaire yooyu noonu nga koy xencu sama bébé di ko xencu non je veux que tu te cases que tu sois calme nga toog dal ku nekk ak li nga bëgg man loolu laa bëgg. mais man Boubacar coiffé wu ma benn bopp laalu benn bopp afro wu ma kenn. man damay gérer coiffeuse yi. Nissa dégguloo li ma la wax am naa sañ-sañ wax la li ma bëgg wala awuma sañ-sañ wax la li ma bëgg li ma bëgg mooy yow gisoo ni afro yooyu ñu koy def sax dañuy sol gant bugguma loolu bugguma nga koy xencu bugguma sama bébé nekk ci environnement boobu dama bëgg nga nekk dans d'excellentes condition di noppaluku di lekk bu baax di jug di dem di doxantu di ñëw di def say visite prénatale ku nekk ak li nga bëgg. am naa sañ-sañ wax la li nga bëgg arrêté liggéey boobu. façon lii moom je te promets rien du tout mais n'empêche que dinaa soo ak Astel ñu xool. man du Astel moo yore sama jabar wala moo jiite sama kër li ma bëgg am naa pour wax la ko te wax naa la ko bu fekkee ni tu peux le faire tu le fais pour moi si tu peux pas le faire tu me diras aussi que tu peux pas écoute je te nga xool nooy def d'accord allez. bëgguma ñuy waxtaan nii di xëccoo yow tamit. d' accord. d' sama xarit waxtaanee rek jubóo. ok. bàyyi bi fekk dafa am ci sooy. xarit. s'il te plaît. wuy ma kañ laa lay invité ñu génn fan yii ah. waaw fan yii. d' accord. ci sooy yow tamit. Quelqu'un a essayé d'enquêter sur moi. Je veux savoir c'est qui. On se